mais jàngat bu nekk rek bi ma ci def mooy peut-être ku nekk aussi ak lii la lii la dugal ci politique ku nekk aussi ak say orientation ci politique parce que man sama soubassement politique j'ai jamais la politique ah dama ko dama ko siboon mais sama koñ moo jaxasoo woon yàgg naa ko wax euh, suma waajur bu jigéen masul politique mais ñëw na ma dugal ci politique dimbali ñi nga dëkkal ndaxte man nga ko donc loolu moo dugal ci politique donc 13 euh, ans 14 ans tey ñu ngi jàpp ci sénégalais donc suñu conviction bokul ak ñoo xamné aussi wala ko xamné aussi pour am pour démolir askan je crois que c'est pas la même philosophie mm. donc nous on veut républicaine aussi pour le Sénégal et que forme politique de du du méngoo ñeneen ñi. waaw euh, langue politique bi nu mu demee euh, vraiment violence extrême ñu dem ba euh, tiit ndax ay waxu gànnaay la wax ay fatal ay jasi ay songu lo ci wax. mais li ma ci njëkk wax rek moy que déjà ci li nga wax yépp il faut ñu recadrer un peu parce que ça bo waxee dégg na nga premier ministre premier ministre c'est pas le premier ministre actuellement qui est en jeu c'est le président du PASTEF jiite la liste PASTEF bokk ak candidats candidat ay tête de liste di pour li nga xam ne mooy euh, euh, assemblée nationale. donc c'est pas le premier ministre aujourd'hui qui parle ou qui déroule sur l'étendue du territoire mais c'est le président du parti PASTEF. bu ñaar yooyu nag benn lay nekk si politique hein. dañu en campagne. xam nga tey boo boo boo ko taaxalee. boo ko ñaar yooyu. Ah. c'est que def nga. fii ton Tunkara il faut ñu boo ko taaxalee rek xam nga lu tax nga koy taaxalee. Mm-hmm. pour faral pour far. dinaa ñëw man ku ma xam-xam na ne dëgg rek laay. mais ñaar yooyu. keroog dégg nga premier ministre bi mu taxee lu mu wax. moom ci boppam bi muy wax. nee na kàddu yi may wax nii c'est le président du parti. mi ngi xool boobu mi ngi nax boppam. xam nga fan la am na waxaat na ne man su ma joxee ndigal ministre de la justice. dafa war a topp dafa war a jox ndigal procureur général kooku jox ndigal procureur ñu arrêté kooku. ban kañ la ko wax. si kàddu gi lii nii. waaw bii kon li ma ci dégg mooy li ma ci am man li ma am ba am mooy moom il s'est exprimé en tant que président du parti. bii la ko wax fii nii fii ah, léegi bi ñu teg léegi. nañu nañu nañu ñëw rek parce que man li may développé di nga comprendre li may wax rek mooy que tey euh, il faut que comme ci manti doon rek nga jiital Sénégal te nga ëpp que man. violence man japp na ne l'arme des faibles mais aussi tunkara yow mi sa bop je crois que sa keur bo nek sa njabot fofu sa gis ko xamne chaque fois mu door sa dom ben yon ñaaru ñett yon di nga gis sa bop entre nous rek de manière naturelle et spontanée je dis encore une fois bu ñu waxé deug rek ki nga xamne aussi ñep japp nañ ne moy attaquer caravane moy indi ciow problème nañu wax mom mhm. quel que soit alpha ci autre que parti pouvoir aussi ñi nga xamne tay ji Té buñ waxé deug rek à part bo xamné c'est pas élucidé muy siège bi ñu lakk c'est pas élucidé ken mënu ko tënk y a pas tey ñu bëgg ñu mën ko parti Pastef liste Pastef ñu ngi def campagne bu dal campagne bu baax bu ñu waxantee dëgg rek ñi nga xamné ñoo indi perturbation aussi nañ leen wax aussi ñu gëna a xoolaat parce que Sénégal benn bopp la ken mo ko ñaan le 17 bu passé ñun ñëp ñoy andal té image bi nga wone sank entre. Euh, Sonko ak ki nga xam ne mooy euh, Diaz image bu rafet la cest à que dara jaru ko fi le Sénégal ne peut pas diviser à cause de ces élections là te li ñu dund bi passé dafa metti on ne doit pas y revenir. ah mais pour garsa garsa ñëwaat na. dégg nga ko mais mais yéen pourquoi yéen euh, doo leen xool la cause. waaw d'accord wax naa la xaaral rek wax naa la benn wax boo xam ne dama ne yow boo ñëwee sa kër yor sa njaboot am koo xam ne locataire wala yenn dëkk. chaque jour mu jël sa doom bi gën a ndaw wala sa doom di ko di ko di di ko duma nga baal ma ci kàddu yi da gis sa bopp. xam nga loolu lu mu moo tax ma ne. li nga wax ne xam nga mu tudd. waaw moo liggéey l'original. Uh-huh. mosoo liggéey si état. mosoo nekk homme d'état xam nga Napoléon moo la gën a xam état gën ma ko xam xam nga mu wax nee na de d'état. Uh-huh. homme uh-huh. na son cœur. doit être dans sa tête. li ngay wax ni homme d'état warul yaa ngi ci yaa ngi si histoire yaa ngi indi histoire nous on est en 2000. 24 Le ma dem ba gis nga sànq yaa ngi wax ci éducation xale yi xale yi tey bu ñuy fa ay smartphone la ñuy fon suñu doomi ndaw yi ay smartphone la ñuy ñooñu gën a xam sax portable. état sophistiqué déglu rek ma wax encore une fois état méngoo ak li ngay wax nii. déedéet état méngoo na loolu. Hmm. parce que l'État, c'est c' vous bu fekkee sa kër daf may sama doom dañ ko dóor nga jël misaal boobu loolu du état. c' quoi l'État L'État, c'est vous c'est moi L'État, c'est nous attention l'État, état c' pas les tenants du pouvoir L'État, c'est nous tous il faut le comprendre. nous dañ koy incarner à un niveau qui est euh, par exemple euh, premier ministre. ministre de la défense ministre de la justice nous sommes incarnés incarner à un autre niveau. d'accord hein? d'accord mais ce qu'il faut comprendre c'est que le problème nous nañu nous à toute équidistance aujourd'hui personne n'a raison dans cette affaire là mais la source il faut aussi source boobu aussi ñu pour dal am. lay man dama xam nga dama and ak yow moy mhm. euh mbir bu amé bu mënti nek dañu wara xol kenn ku lan responsabilité dama ci ak 100 mhm. donc ñi a song franchement ñaxam lañ def ben ñaar ñi song.